galas ni ko waa jàll si mu ni waa xaar mu ñëw daal di dem woo nag ñaari grand ak benn jigéen ba femme bi mi ngi doon jeeg bu ndaw boo xam dafa sol robe bu ñu mélangé ak brodé mooy yi jigéen ñi xewe léegi robe bassin yi ñu jaxase ak brodé ñu ànd ñëw bi ñu dikkee nag automatiquement rek laa man xaw naa ñaaw njort trop ma jug taxaw fekk mbubb mi dama seulement bi ma jëloo laa soloon mais bi mu dikkee dama gaaw jël sama mbubb sol ko taxaw nag taxaw nii daal yor sama sama appart nii laa ko yore nii mu dal dugg ci biir ñaari grand yi dugg ci galas toog ak ñoom ni ko euh, léegi loo ñu defal galas ni ko 665 laa leen koy jëndalee laa leen koy laa koy jënde mun ko 665 tur na de ndaw si dal toog mu jaag ko waa mbëri ma jox ko grand bi ni ko nay déedéet dal di bi mu génnee boo dee demee porte dafa ubbi poignée bi yër ni yër ci biti yër xool xool xool di xool ba bi mu dugaatee dal mu la mu jëkk a def mooy rek dank bëgg ma jox bi mu dankee def nii ma kalu ko bi ma kalu mu mu jàpp sama fii ci la ma xoj xoj naa ma waaye may def noonu si day man ko ak grand amun waaye xalal waaye génn na xaalis bi non non macha allah muur suñ kanam ay ñu yiw lañ ci gis ay nit ñu yiw lañ. boo gisoon xam. waaw bu baax. macha allah am na caméra wala. am na caméra am na ci laa jëm ak yow léegi biñ ñu defee noonu. grand bi nii la doon génne poosam borom demi saison bi. ñaar lañ man ki do ki ma téye nii ki def nii loxoom. ak kii ma xoj sama baat ki jàkkaarloo man nii nii la doon génne ci loxoom poosam nii naan nii di génne di eh, mooy escorte yooyu ñuy takkee escorte eh, bu ñuy bu ñuy wote pañ yi ni ñu koy escorte sans escorte ci loxoom ci poosam mu escorte sama ñaar loxoom a génne kol kol carton bi kol kol nii kol kol bi ni ko kolal gémmi gi mi ngi xool kolal kii fi ñu bëgg a xàmmee ay wolof lañ doon wax ah gisoo paak bi ñu yoroon moo ma jam fi gisoo gisoo gisoo fii paak bi ñu yoroon yor nañ aussi pistolet parce que wax nañ wax nañ ne nañ ko éliminer kii mi ngi xool éliminer ko mbër ki mu ne wax na mbër mooy ki ci gën a solaare parce que moom mooy direct karaw gi nii kooku yor na paaka paaka fii la ko génne may gis yor na yor na aussi pistolet nee na ko éliminer éliminer kii kii mi ngi xool éliminer ko éliminer ko ba bu ñu may jéggi di jàll loolu la ko wax dañoo jël caméra kii caméra yi ndaw yi dañ ko waxtu yóbbaale yóbbaale kii machine ba kii bi eh, écran eh, écran données yi dañ ko yóbbaale xaalis bi de xamaguñ ñaata la moom xaalis moom somp moom moom loolu moo nu xam naa somp am solo laal mais xamaguñ ko. loolu moom il faut ñu toog tuuti. moom nag ku ñu dimbali si dëkk bi nag dëkk bi moom insécurité bi moom dafay fees dell moom yow mënatoo fee yeewu ganaar sa kër du copine xar moom jëleel naa ko léegi nag bureau de change yi bëccëg la ñuy parce que xam nañ guddi moom amatu solo bëccëg la ñuy ñëw léegi loolu mooy li ñuy ñaan.